On est venu toute la famille, mais pas de problème. Vous connaissez bien Baye ah, on connaissait bien, bien. quest hmm? C'est une grande chose. On ne peut pas euh, expliquer comme ça, c'est plus grand que... en lui. Ça, c'est un grand personnage, un grand wali, un de toute l'Afrique. join woni bi hatta na waaw yëpp doom yëpp Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Cheikh Cissé Cheikh Mahi Cissé man raaybe man Cheikh El Hadj Misri barakallahu bi umri insha Allah yaud ila umr لا إله إلا الله لا إله إلا Cela montre que vraiment euh, ñëpp pare nañ instant pour euh, euh, gàmmu fii ci Medina Baye mu nekk gàmmu boo xam ne c'est international.

nag gan yi tàmbale ne ñu di ñëw salaamaaleykum ça va na nga def waaw taxawal ma wax ak yow c'est la 2STV bi dañuy wax ak yow looy looy looy lan ngay tiitaru non tiituma sax fan nga jóge Rufisque nan nga tudd Astu lan moo tax nga ñëw tey gàmmu tey fii nga xam ne moo di Medina Baye waaw gis nga tey dañoo ñëw fas yéene ziar bi dugg si nag fii ci jumaa ji ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekk sëñ bi nuyu nañ la. man maa ngi tudd Abdoulaye Jémé. Uh-huh. waaw ñëwaale sécurité jumaa ji. waaw. waaw. Euh, fan nga jógee. maa ngi jógee Dakar. Dakar waaw euh, lan moo tax ma bu jógee Dakar ñëw fii nii. waaw sama sëriñ moom Baye Diouf la. waaw moom nandal ci Pays Baye. waaw Mala ma Mala Thiam mooy sama moom. lan nga ñu mën a wax tey ci Baye. man ah, ginnaaw yàlla maa ngi san sama ñaari waajur di gërëm Mawlana Cheikh Ibrahima baar bu ko gis rek bëggal ko sama bopp far yàlla lu yàlla def rek mu feeñu yàlla mu feeñu ma nag ma 2006 nag tombé nag ma tarbi waaw ma ne lépp lépp lépp lépp lépp balaa maa mën a liggéeyal bàyyam foog ma ko sama càkkatif pour mën a jër ci buntu donc yow tey da nga ñëw uniquement assurer sécurité bi sans rien du tout. man loolu loolu moo ma fi pour lan liggéeyal bàyyi la moom ñor kese waaw soxla ma alal soxla ma dara liggéeyal bàyyi la pour jëriñu jox son càkkatif loolu la ah non man man ma zikar waaw man ma zikar soldaaru bàyyi la waaw ñëpp waaw. la ngeen ngeen euh, ñëw fii tey euh, fan ngeen jóge ak euh, ñu ngi salaamaaleykum ñu ngi nuyoo ñëpp man ñu ngi jógee Ziguinchor Ziguinchor moo tax ngeen joge Ziguinchor ak contexte actuel bi di Covid 19 mu jaree leen ngeen def déplacement ñëw fii ci Kaolack waaw bëgg bëgg yàlla bëgg yenent bi bëgg Cheikh Ibrahim moo ñu ko jaral waaw. yow fan maa ngi tudd Moustapha la 2 yàlla comme ni ñu ko doon defee chaque année. at bu nekk ñu ngi gàmmu ci Medina Baye waaw dëgg la am na mais Baye lañu bëgg moom ñun Baye lañu bëgg bu ñu tëjoon frontières yëpp te ñun lépp oto daw dañ jaral nañ ñu dox ko tànk depuis Ziguinchor ba fii ko dëgg lan bëgg jënanti bëgg Cheikh Ibrahim bëgg Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waaw loolu sikka حي الله لا

la ah, ah, ah. ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la télévision autrement ci gàmmu gi salaamaaleykum nuyu nañ leen bu baax euh, tey waa 2STV bi ñoo leen seet si ñëw waxtaan ak yéen li nga xamante ni moo di gàmmu gi euh, nan nga. Hamid fan nga jógee. maa ngi dëkkee Kaara. Kaara fii war a am nakal frontière. waaw yow ah man de oto laa dugg. waaw waaw kat gëli ah man de giri bàyyee laa ñu. waaw giri sërëm bàyyee man Hausa la waaw man fii laa ñëw uute kaalis amma at bu naka gam boo jot damay bàyyi lu ma def yëpp ma ñëw ba di bàyyi ziyaara après ma delluwaat foofu tamit su ma ñëpp foofu ñëw rek eh, ci ngi tey lan ñu mën a wax ci Baye. ci Baye ah wax dëgg yàlla Baye moom de amul morom wax dëgg yàlla tërëm bu la adduna yi ba xam na ko waxuma fii Sénégal wala Gambie wala Mali wala Burkina tous les man adduna yi xam na ko borom barke la bàyyi na la bëri wax dëgg yàlla loolu lan laa mën a wax ci moom parce que kenn du mën a wax kay affaire yëpp nga ne lii ak lii déedéet moom Baye yëpp la waaw sincèrement. jaar ak contexte actuel bi ci wax Covid 19 ndax amoo leen ay jafe-jafe. dégg amul benn jafe-jafe boobu wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe. ah respecté ngeen kon. yëpp de amul benn problème wax dëgg yàlla waaw amul benn coono tamit. di remercier rek euh, yow nag. Eh, man dégguma wolof de Awsa la. mun ma mun maa wax pour li nga laaj kii pour nga laaj mun maa laaj loolu. waaw amul ragal. fan nga jóge. waaw foofu laa ci frontière bi mën a wax ci Baye. waaw alhamdulilah rek ba yëpp xam nañ ko. te yëpp luñ def daal yëpp gis nañ ko. te sant yàlla lañ war a wax. wax dëgg yàlla sant yàlla lañ wa a wax waa bàyyi wax dëgg yàlla ñun depuis buñ nekk Niger te depuis suñ maam ba ñun wax dëgg yàlla xam nañ ko te digg nañ luñ def te gis nañ ko alhamdulilah sant yàlla loolu yaakaaroon nañ ne sax ak Covid 19 waaw waaye balaa Covid 19 bi de commencé ñu ngi fii waaye dëgg yàlla ñun di fi daaw jet baren ñu ngi waa lii problème bi ñu ngi bëgg a dem duñ dëkk ba léegi mu ñuy dem boobu rek mooy suñ problème waaye lu boobu loolu alhamdulilah sant yàlla. ah ñu ñaan yàlla rek bu gàmmu gi jeexee incha allah kaay jeex ku nekk ñibbi dëkkam ñu di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf aw sa ko malgré Covid 19 ko dañuy waxtaan ak keneen rek sëñ bi nuyu naa la. waaw ah, maa ngi fan nga jógee ak nan nga tudd. yo lan nga pël ana ni pulaar no feewi feewi machallah ko taki garɗaga hannde sikko aadi ga ko moƴƴi woni machallah annin waɗi en yimɓe goɗɗi salba baye jogi galle mawɗe min dane mo kaddam amen ceerno amen tignaɗo amen wiyete cheikh oumar sow hedde amen ɗo machallah min dele wuuro min garɗo min gam so gam wa gammu yawti après hande ko mbawɗa min haalande e baye a ah, min noon machallah mi tobde haalde mawlana sika meɗen tan tofel o mi jogui yonentiɓe rek ɗum fo heɗemi ceeɗo somi jogui men a jaaraama merci beaucoup gis ngeen ne tukulóor lañ wax léegi aw yi la ñu waxal mais li léegi nii tukulóor la xam naa buñ doxantoo tuuti dinañ fi gis séeréer ak joola parce que bàyyi moo toll noonu euh, dañuy waxtaan ak keneen rek sëñ bi nuyu asalaamaaleykum Ismaila Ismaila Anka Bambara Saraf Hausa Hausa ah. fan nga jóge Niger depuis kañ nga fi ñëw waaw naam am na masha Allah da ka ga wannan rana sambar hama maulidin ya alhamdulillah muna godiya barkacin alhamdulillah eh la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah man gi joji kara wa ñu koy wax dëgg mam suma mama saba la jidi mam ci boppam daga na turba Niger baay wax dëgg la amul ma ba kenn na man kay lu ma bëgg wax sax soo fekkee gannaaw yeneen sallallahu alayhi wa sallam dana am benn yeneen bàyyi la amul moom. ah bu baax. sigar comme ça sigar bàyyi. ok alhamdulilah. la ilaha illallah la ilaha sigar la. waaw jërëjëf ba boobu de baax bii saa baax na doy na.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 kaya min calmitima banamen debbo moƴƴo ɗum wiyeteta mbiyetemin ousmane ummiɗa ummi mum to dakar jeyami koto wiyete hawre fouta région de matam eyi ɗeɗo tellon ko télé gara alaji jaayi min calmini bandiraɓe fuutankoɓe min calmini bandiraɓe min julfuɓe e seeɗaɗe kala gonɗo e nder ko gammu o kono gammu o yahani ko tahi yahani min keɓani cliyaneɓe ah. nigérianaɓe e gotaraji ko kono ngala sooda ɓe ɗal o dañde kaani min cuwa ha soodanno en garay aha allah ko moƴƴo a wawi haade janggo inchallah client uji ɗi arat on allah way ko ene allah wawi ko kañum tan wawi ɗum kadi ane allah wawi addoɓe joni ni kono kam weeɓay ko wone jungo allah yimɓe mbiye tiiɗa kon tiiɗama ɓaara goto yiyatamo sako horkiti rafi covid 19 o covid 19 o addi ɗum kanko soki aduna o foof wona sénégal tan o sogi mondo fof so yimɓe lomndira so ala minen kam ɗum haawan min par ce que o farani sarte aduna o fof par ce que wona sénégal tan aduna o fof ne waɗi leyɗele chine en france en koko sogi ɗum noon yimɓe yo gartin haqqillaji mumen ganda ko noon allah diri ko noon allah yaa ko allah diri fof mi salmini on salminima no feewi baba no mbiyeteɗa min gammo tahi garɗa walla ka garɗo pour yeyde gami pour yeyde eyyi joni minen mi gaari guila heccangue ha joni kono min jeyani hoɓɓe min jeyani haydara saabu hoɓɓe gaddanno amen ko ɓen garata gadda kaas coore amen so ɗum waɗi min woda komin dañi min koota kono hikka kam guila kutoɗo nan daari e fewde joni min jeyani haydara ko rafi ndi tahi ko rafi oɗo hen nan guila rafi o ari e fewde joni guila mois de mars fewde joni haydara ala ko gadi golɗe e fof eyyi te kene wonɓe wonɓe caggal leydi ɓe tan ko ɓe garatno min keeɓani mabɓe min jaanino hay goto eyyi ɗo joni hen hay presque min guila min gaari presque min jeeyani min mbaɗani haydara min jooɗi min sabbiɓe ko rafidi tahi kono min mbi on kadi ah, an kam a waɗanima ma te haade yimɓeɓe quand même ah, dañde ko ɓuuri welde manam ah, yimɓeɓe il faut ɓe habba masque uji mabɓe surtout covid ɗon ɗon ko gonga sunu ko o kam sunu ko saga men kofiti sunu ko kam o maayo melow o yaha ha laaɓa anene yimɓe gasa e golle mumen jeho gollowo golle e golle muɗum mbaɗo hunde yaha e haajuji muɗum ko ɗum min ɓuuri yidde eyyi ɗum noon jinata yo allah wallu yimɓe Euh, ñamgu jahala on on jarama kono baba hadda euh, waɗa maskuma aneni wat maskuma a jarama no fewi <laughs> la la la la la Sœurs yi comme ni ñu leen ko jigee woon noonu ak ñi nga xamante ne ni ñoo fi nekk fii ci Kaolack ngir li nga xamante ne ni euh, moo di Mawlid édition 2020 fii ci euh, Medina Baye euh, dugg nañ nag ci yenn bërëb waxtaan ak ay nit nañ ne nag fi mu ne nii ñëpp pare nañ ngir màggal li nga xamante ne ni moo di bés ñu nar ko nag ci ay waxtu rek jamono ji nag ñi nga xamante ne ni ñoo naam ni mu daan mel melu ko waaye ñi ñi ñëw nañ wuyu ci li nga xamante ni moo di sell bi nga xamante ni dañ ci màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naam affluence bu mu daan am amu ko li ko waral du lenn lu dul euh, contexte actuel bi bien sûr du Covid 19 mu impacté lépp nag ba tax na nag aw say comme ni ñu fi daan bëree naam bëree wuñ fi noonu mais am na si ñoo xamante ni ñëw nañ fi nigériens yooyu Baye il est multidimensionnel gis nañ ko ci suñu témoignages yi américains yi naar yi képp koo xamante ni nii rek Baye jot na faa jaar def nga sa kéem kàttan ñëw fii nga fekkee bés bi nga xamante ni ni moo di bés bu sell bi te képp koo xamante ni taali nga taalibe Baye nga bés bii daf la ñor ba tax na nag bokk téléspectateurs yi noonu lañ leen ko waxee woon noonu lañ koy defee digee bor la lu ñu leen dig rek dinañ leen ko defal di ñi nga xamante ni yéen a nekk un peu partout dans le monde di ñu suivre sur la télévision autrement de la 2STV restez scotchés je vous rendez-vous ci kanam ak ay programme yoo xamante ne ni yu jéggi dayo la lépp nag ambiance gàmmu gi nga xamante ni 2STV moom moo leen ko narawal jaajëf ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala هنيئا لي